voilà jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax suñu mbokku internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV jaajëfal nañ leen mu mel ne nag wóoree wa dem na kenn waxi mag dem na ndantaal ji lu waaye doon jaay incha allah tey jii dana lamb préparation ba yàggoon na trop waajtaay yeeg li nga xamante ne bii moom mooy coow li waaye fu mu toll nii ñu ngi ci bis bi nga xam ne moom la ñëpp doon xaar. mu war a dox ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène mu ngi nii fii ci mbaaw nag mu ngi nii buntu kër Eumeu Sène gis ngeen mbooloo maa ngi leen taxaw fans yaa ngi taxaw amateur yi ak ñi nga xamante ne bii ñoo ko sopp bëgg ko di ko topp saa su ne ñu ngi noonu gis ngeen oto baa ngi noonu taxaw si yaakaar naa range boobu lay dugg su fekkente ne bii day génn range bu noir boobu Mansour moom la Eumeu Sène di su fekkee day génn incha allah bu taxaw. mbër ngi ci biir di def li nga xam ne mooy ay débat débam mu ngi nekk ci ay waajtaayam yu mujj ci kanam test voilà ay ca Mansour ay ca Mansour ayca. ayca yéen ñëpp laay ay ayca Mansour ñu ngi fii ci mbaaw salaamaaleykum soxna si na nga def. maaleykum salaam. ñu fekk la buntu kër Eumeu ma noo leen di waajee combat bi tey. ah tey jii moom wax dëgg yàlla kontaan nañ te ba daan rek lañ bëgg instant bi ah, ndax am na moom wax dëgg yàlla borom baax la ñoom moom a dëkk waaye lu baax rek lañ jëflante moom ak jabaram ñoom nit kontaan nag dañ koy ñaanal yàlla combat bi yàlla na ci am ndam. mu war a bëre ak Lac de Guiers ñu bëre woon ñaari yoon Eumeu daan ko ñu bërewaat ñu niil mu war a bërewaat tey troisième fois Lac de Guiers nee na Dóor fayu ah Dóor fayu la wax de waaye xalaat naa am na seen moom bu ko may dara am na rek ñu ma xam du ko may dara. yéen du ngeen gisee Eumeu ba yéen dëkk ak moom mu ngeen ko mujjee gisee mu ngeen ko mujjee gis. Mm, ah ni ñu ko gisee yaa mu ngi ci forme mu ngi ci forme bu baax dëgg yàlla entraînement na bu baax a baax a baax ñun nag am nañ ci yaakaar. am ngeen yaakaar bu baax a baax baax a baax. soxna si ayca sa mbokk mi nee na am na am ngeen ci am ngeen yaakaar ci ëmb. bu a a ndam rek. mel ni seen kanam li ma ciy gis mooy mooy mbégte te combat bi commencé ndam rek ndam rek. la dëgër nee na ko Dakar du saf safaan. ma ci ma caat la. ma ne ko day day fayu. du fayu du ma ko fayu. tey nii amul de. la rëggee tey wax ko nii amul de. rëggee du fayu. nii la amul de. waaw nii nii nii boobu la taxaw. nii ngay duma. ngay duma daan ko deux zéro. ngay duma. oh deux zéro ak benn nii lay doon. ay ngay wax mu. wàccal wàccal ku ma. deux zéro. ah maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam. di leen bu baax a baax papa Eumeu Sène ak sama yaay ñu bokk ndey ak baay. Eumeu Sène. sa doomu nijaay la sama doomu nijaay la mu nekk ñu ko am jom. ñu ko am fulla ñu ko xamante ne macha allah fu mu dem wàcce fa. mais gis nañ ni muy saraxa bari na de ëmb ni mu demee xanaa avance bi yëpp da koo joxe sarax. mais noonu la soo nekkee si dara dañ cee war a ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam jënd bu amul benn warante man ñu gis ko maa koy ñaan barke Seydina Mouhamed xam nga nit baax la du ay mbokkam lañu macha allah maa koy ñaanal yal na ko yàlla may jàmm incha jël ba amul benn warante ba xaw ma la de guerre xaw ma ba la guerre jël de guerre xaw ma ah, la de guerre waaw xaw ma la de guerre xaw ma est-ce que gis nga ko muy yenu ay panu ay panu laa ko gis muy yen moom moom day dem taxaw du tëree du def dara musuñu xeet na ko dal deux ans bu ñu tëddee dañuy nelaw nga xam naa dañuy dem tànkoo jël ba amul benn incha allah dañuy dem daan ko jël bu amul benn werante loolu foo leen ko teg daan ko jël bu amul benn werante suñu bopp doon na te ñun gaynde lañ duñ daw duñ ñoo ko man dañ koy daan ñu si si kàttanu suñu borom ndam rek waaw si barke Seydina Mohamed am na seen yal na ko may ndam lu sedd ko ndax am na dafa baax bëgg suñuy njaboot macha allah am na seen ndam la ñaan yal nañ ko yàlla bi maye ndax ñun ndam rek leen lu mooy ndam kese incha allah ndam Aïcha Mbagne mi ngi noonu mi ngi noonu gis nga mu mel ni yi ak nga xamante ne bii ñooy soppe yi seen xel dal na li ñu gis ci ñoom mooy que mbégte ak contentement am nañ yaakaar ci champion am nañ yaakaar ci mbër mais champion loo ma toppee boobu léegi. waaw may wax ci Eumeu Sène rek da Eumeu Sène gaynde la quoi billaay wallaay te bu ñu def Balla Gaye rek lañ koy def 2-0 lay doon dañuy dem dañuy dem géejewaay xam dem nañ géejewaay nokku Balla Gaye ñaari yoon. dañuy duggaat géejawaay nokkaat Lac de Guiers. may wax ni mais mais foo ko teg. booy woo del kàddu bi tamit nel daan wala waaw moom moo moo gën quoi. waaw dañ koy daan. ok dañ koy daan ah waaw. daan nañ Balla Gaye ñaari yoon daan nañ Balla yoon dañ ciy teg Lac de Guiers indi victoire bi Petit Mbao te loolu lañ nga wax nag. ñun ay gaynde lañ ñun ay gaynde lañ ci biir kër gi fekk fi ka nga xamante bii mooy suñu bàjjan bu bàjjanu am na seen bàjjan nuyu naa la. maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax a baax. loolu mu fanaane sonn ngeen. sonn rek ndax suñu doom da koo jar am na da koo jar Demba Yacine. Hmm. da koo jar maa ngi koy ñaanal ndam ci barke Seydina Mouhamed ndax yaayam dafa liggéey nag Bintu Badiane dafa liggéey loo xam ne nee nañu liggéey nday pikir la ci doom doos bi yal na yegsi ci am seen. Demba Yaasin Kumba doo ma jox ngoone ma ca Lambaay Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Fëri maa jigéen joom maa bàyyi ma bokk ndey ak bàyyi. déggal loolu. maa ngi nuyu ñëpp nag di ñaanal Sénégal gépp di ñaanal waa Malika ga ma jóge waa Italie ak waa France bàyyiwuma kenn ndagam bàjjanay bàyyi te ñaanu bàjjan day dal yal na ko yàlla may ndam da koy duma daan li laa wax. yow bi nga mujjee gis émission lan gis ci xar kanamam. kañ nga ko mujjee gis. maa ngi ko mujjee gis bi rakkam ji di bëre booy jaxaaw. booy jaxaaw maa ko jur. mu ñëw ca kër ga. seet si rakkam. indil ko lu bari. te lu bari jox ko Demba Yaasin Kumba Bey boobu laa ko mujjee gis. gis ci moom nag bëreetu ngor. gis ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla yal na ko yàlla defal jàmm te yàlla defal ko cat ci barke Seydina Mouhamed jërëjëf waaw di ñaanal nag borom télé bi borom télé bi Pape Thialis maa ngi koy ñaanal di ñaanal ñëpp ca kaw kanam rek Thialis moom Pape Thialis moom amul tànk ginnaaw ca kaw rek ca kaw ca kanam jaajëf bàjjan waaw kii ñu jàkkaar loolu nag yaakaar naa ku xam ëmb xam ko ndax macha allah lépp lu ëmb fecc moom moo ko tëgg lépp lu ëmb bàkku Mor Ngom mii moo ko moo ko moo ko tëgg Mor nuyu naa la fay naa la sama sëriñ noo yeewoo mbaa nga jàmm an sant naa suñu boom sant maam Cheikh Ibrahima Fall ana galam yeeg lënd yi lépp a ngi fii lan lañ lan lañ mën a xaar ci lu bees tey. waaw man comme at bu nekk dañ may xaar te nag at bu nekk la ca war a mën a xew waaw ma teew nag indaale bees tey man ci cosaan lañ ma xamee te ci galamu góor lañ ma xamee te ci góor rek galamu góor lay fekk incha bu soobee suñu borom waaw. tey lu bees lan ngeen andi. waaw indi nañ lu bees am nañ cosaan bu bees ci kattanu yàlla waaw. lan moo la boole ci am na seen. waaw Oma dafa doon koo xam ne eh, lépp suñu borom la jógee. mu dëgg galan te it eh, dama bëgg ko xa ku dëgg galan moom xam na ne man mën naa galan waaye man xam naa ne moom dëgg na galan suñu borom nag mooy xam ni ñuy def boole nañu ñu ñaar boole ñu ci kaw ngor waaw mu doon sama rakk ju ma bëgg te yàlla rek tax nag dima jàppale ci te gu nekk isaar bu nekk waaw. mu am combat bu rëy digganteem ak Lac de Guiers tey jii bu ci yàlla àndee eh, nan nga gisee combat bi yow. waaw man dama ne eh, ku yàgg dem ci dëkk. fa nga jëm du la jaaxal ndax min nga yoon yi fu ngeen jëm dëkk boo yàgg a dem boo fay dem du la jaaxal ndax minoo yoon nga fa nga jëm kon fi ngeen jëm jaaxalu la waaw dëkk bi nga xamul fa nga jëm moo la jaaxal waaye du fi nga jëm mais est que loolu du naagu waaw déedéet du naagu parce que xam nga li nga xamul moo la jaaxal waa li nga xam ne day aussi xorom fi lañ ko fekk waaye nag dañu yokkaat ci ay jimbo ci biir pour mu gën a saf rek waaye ku ne xam ne ku togg bàyyi sa xorom si toggoo duñ ko lekk waaye dañ ci rax ay jimbo pour mu gën a saf rek. sa waay nee na dafa ñëw ngir fayu. waaw waaw loolu la am na am na droit wax ko nit ku nekk ci la nga bëggal ci des nag ñu dénk ko suñu borom tey ñaan suñu borom may ñu ndam bu sedd guy ci kawam. lenn laa bëgg li ëmb di bàkku li nga koy tëggal ci galam bi nga tëggal ma ko sa gémmiñ léegi ma dégg. waaw man nag dama mëneewul maanaam tëgg gémmiñ hmm. waaye bu ne demee ba ci aareen ba. na nga jël di nga déglu di soobee yàlla te di nga dégg ci kattanu suñu borom. ñaata ñaata dënd nga foor. non man comme d' habitude la ba doon indi laa doon indi. yokku ma wàññi ma fa jaar lay jaar te incha allah dinaa. indiwaat leneen lu boos ci kattanu suñu borom. da doon def mu jig waaw eh, ñaan naa suñu borom mu parce que nee nañ li ngay def mu jig la. bu ko bàyyeeti ndax jig la. jaajëf Mor waaw amul benn problème. alaaw ma nu ñu ngi def ci a jokkoo njalo foog séeréer. ah eh, mi teen rek parce que o kiin jegee rax le pogum te it waaw o kiin o pogum te it eh, ma awa afel angaan te ref affaire cosaan olof ndaa ka gara bug séeréer comme o séeréer il no affaire séeréer te ande reke o kiin rek tiglo kiin o yasin fo ten in sereer i ndam ten rek to yit anda ye sereer no jom a soɓe no fit a soɓe no o waag njomit no sereer soɓe yasam roga in jam te in i njego victoire ɓuuɓu no barke tok tok Lac de Guiers no barke roog fo o yaal barke Mame Cheikh Rahima Fall xa o ref Baye Fall waaw i jaru sax laaj loolu jaru sax sëñ Modou Boussa Fall ay sama sëriñ sëñ Modou Boussa Fall sëñ Ablaye Fall sëñ Modou Ablaye Fall ay baayam sëñ Modou Ablaye Fall sëñ Ablaye Fall Ndar baayam kon xam nga ne man Baye Fall pire la ma boo ma boo laalee ci rek dama yëngu dama lay bañ a daaneel ay ca Mansour ay ca Mansour gis nga mini car baa nga noonu di génn mini car baa nga noonu di génn moo def li nga xamante ne bii mooy ndënd yi ndënd yooyu lañ fas yéene bàkkale am na seen ngoon incha allah bu neexee yàlla mini car bi na mooy jiitu ci stade nee naa leen tey fii ci Petit Mbao foo sànni mbatt mu tag Mansour nee naa la lamb dafa neex lamb dafa nekk la nga xamante ne bi ku ko dundul mënoo koo xam gis nga. ñu ngi gis benn gaayen benn rasamaan bu nekk ci kaw minicar bi minicar tour gis nga cey làmb ngi noonu ñu ngi koy waxee facteur de développement la ñu ciy gis seen bopp dafa bari gis nga sama yaay mi ngi teg ay mbiipam mu ngi teg ay sifleen mu ngi mu ngi teg li nga xamante ne bii mooy ay ay drapeau ak ay ay brassard lépp ngir am na seen rek làmb ngi noonu facteur de jaaykatu bandoo bi ku ci nekk ciy gis sa bopp nee naa la jaaykatu caaf ba nekk buntu stade sax day gis boppam ci làmb moo tax làmb ñi nga xamante ne bii dañ ciy gis seen bopp ñi ci mos dafa bëri champion naka t-shirt yi ci mi ngi sant yàlla bu baax mi ngi dox waaw. yi ñu ngi bu baax. waaw gars yi ñu gis na. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. jaaykat bu ne alhamdulilah rek dox na. <laughs> alhamdulilah. jaajëf ayca. Mansour wax naa la ko mi ngi noonu ñu ngi ñu ngi buntu kër am na seen fi mu toll nii nag xam nga na kër am na ak géej gi amul dara lu dox seen am na day génn rek. yem ci li nga xamante ne bii mooy mbal li nga xam ne mooy entraînement yaakaar naa nekk na lu am solo amoon bu génnee ba këram rek ci tefes gi lay mën a entraîner mën a def def du gar këram te këram du ko gis gis mi ngi noonu bu ñëwaatee ci mbooloo mi mbooloo maa ngi taxaw macha allah ñu ngi taxaw buntu kër am seen di taaxaralu di xool naka la mbër di génne ngir jëm fële ci stade incha allah bu neexee yàlla. léegi ñu ngi fii ci buntu kër Eumeu Sène ñu ngi jàkkaarloo kenn ka nga xamante ne bii nag kenn la ci Eumeu muy grand Pape Sarr grand nuyu naa la. fay naa la. mbaa am nga jàmm nuyu waa Leewtoo yëpp. waaw di leen di rafetlu seen may wax Pikine laa jógee mais damay nuyu population mbaaw yëpp. képp ku kuy dëkkandoo Eumeu rek. muy mag muy ndaw. xam nga maa ngi leen di nuyu. di nuyu waa Touba bi ma jógee démb. ma ci nuyu sëñ Mountakha mu sëñ Modou abit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu njabootu suñu aafiya yëpp di nuyu waa Tiwaawoon maa ngi maa ngi gërëm bu baax Ndiol Fouta maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm waa Pikine waaw maa ngi gërëm bu baax di gërëm diaspora bi tamit gis naa taxawaay bi ma taxaw xam nga gis naa ni mu jàppale sama waay daal. tey combat bi lan la leen jaral. d'accord man dama yor licence promoteur comme Gaston Meng. Mhm. yor licence promoteur comme Luc Nicolaï. Mhm. suñu wooree ba pare dama yor licence. mais Eumeu Sène bu jëlee roi des arènes li des sama dund dootuma topp mbër dama ko topp ci quarante mille ba ci cent millions mais sorti la de guerre bi moo ma indiwaat. so ban la ban sorti la la de guerre. mais bëggoo sa rakk yi Eumeu Sène Ama mois dol fi booy ñaa dañoo aj Eumeu Sène Eumeu Sène mu ngi préparé ro mu ngi préparé Modou Lo combat am des une semaine mu bàyyeekoo fii ñëpp nee nañu looloo ko daan mu dem taxaw ji rakam Boy Niang Ama Baldé barki démb di bëre Papa Sow Eumeu Sène di bëre roi des arènes bombardier mu bàyyi fii yëppam bàyyi yëpp bàyyi nii nag xool ci dara dem taxaw ji Eumeu Sène euh, taxaw ji Ama Baldé sol tere mun teer kon la de guerre na bàyyi li muy def na xool Balla Gaye ni muy def Balla Gaye def bataille psychologique lu ko yàlla may mu jël mais muy bataille seytaane la la déggee dafa foogoon ni tey su ma waxee nii Eumeu Sène tey Pikine bàyyi la Eumeu Sène Pape saan rek dafa doy Eumeu Sène nag ak Lac de la si digg géew bi mais man ak borom kagul bi la. kan mooy borom kagul bi. tey borom kagul boobu. mooy kii kagalu. tey mais am nga combat de kon. non du lii du yàlla borom mbaar bi. mooy xool ku mu neex jox la ndam dafa ñoom dañu mel ni ñoom ñoo ñun ñooy ñaan revanche man seul Sénégal maa ko daan damaa seetaan barki démb nag si benn sorte mu ne daan na Pathé Baldé maa yóbbu Pathé Baldé nga paru dëgg la daan na ko mais bi mu koy daan le Jules Baldé daan bombardier période boobu Pathé Baldé soixante-dix-neuf la juddu kon la de guerre mun na jur ëmma seen mhm. fu fu bombardier amagul licence dafay bëre mbapat nañu bàyyi mag bu ñuy wax kii. kii suma kanam la juddoo du dëgg dégg nga lan li jëntil làmbam xool ko yàlla di maye ndam mu bàyyi mu dem wuti ko takk mais mais mais mais ñu ñëwaat ci combat bi tey gis nañ ne xam nañ ne yow ku jege mbër nga euh, mbër ban moment nga ko mujjee gis waaw dem taxaw yóbbu samay nit ci stade bi li ñu yaakaar dañ leen fa jiitu parce que ñoo fa dëkk man dama ñun bàyyi nañu jël Ndiaga Ndiaye dama comme buntu kër am seen ak géej bi mooy suma kër dégg nga mooy suñu kër dugg na nag mu ngi si stade bi moom la dëgër waaw dugg na ñëw mhm. maa ngi koy xaar du loolu mooy daan Eumeu Sène ñun mobilisé wu nañu te Eumeu du fa wéet mais may woo Pikine waay mu ñu woo Pikine waay ne leen nañu xool ci Pape Sarr Pape Sarr du topp mbër mu daanu daanuwaat rek nga bàyyi ko man du ma toppee noonu mbër. kon la ngay toppee mbër. voilà mais lan lan mujjee gis ci moom bu ñu ko gisee biig forme ñu ma ko gisee ñu ma ko gisee. noonu laa ko gisee combat ak bombardier noonu gis nga noonu laa gisee ci combat yëpp bu dëgg xam naa sama mbër bi may supporté bu baax combat bi noonu ci mën a wax ci xeex lay mu jéewale ci bëri. du ma la wax ci xeex du ma la wax ci bëri mais li may wax mooy supporters yi dem stade képp ku ci am feebaru hémorroïde te ñëpp xam nañ ni toogaay bu yàgg day yëngal hémorroïde jarul nday dem stade parce que xam nañu ku ñuy bëreel day yëngal hémorroïde. da nga bëgg a wax ne combat bi day yàgg. ma ne la ma la day jël yaram bi day jël bopp bi bàyyi fii nii jël yaram bi yóbbu jam ñaajo. ñu nag suñuy ba suñu baraade kaas la ñuy teg sa benn tànk Eumeu Sène du fekk si beneen bi ah loolu mu yaakaar ni mu def Papa Sow da day sànni sa loxo mu paraake la wala mu kal la loolu rek am mënul dara la dëgër xamul kenn xamul hmm? mais yow à l'âge de 23 ans nga nekk frigoriste mais yow lamb da nga jàng à l'âge de 23 ans mu ngi Canada tribunal Guédiawaye bu bees bi tey fa la yor fourgoris ñun mu ngi dëkk boo paasee Safbar ñun mu ñu xamee Lac de Guiers xamee wu ko ñu Lac de xam na entraîneur bi koy toogal ci siège bi am na seen da koo mbot ba faar bi damm waaw entraîneur Lac de Guiers entraîneur wu Lac waa écurie waaw xam nañu am na seen dégg nga mais nag ma leen di wax. mu ngi fàtte ñu ngi fàtte Eumeu Sène ki leen daan ñoom ñëpp maa ko daan te kenn daanu bu ko. Bombardier kan moo ko fi daan man rek maa ko daan. jaajëf Kelle. waaw jàmm yàgg. waaw képp daal ku si am hémorroïde bul demee sàdde. ay sa mañ ay sa mañ ndaanaan baa ngi noonu am na ma nga noonu ñu seen. mu sol benn lu mel benn grand bu bu weex grand bu bu perkal la mën nga xëyee. ma nga noona di doxantu ma di saafantoo ak ñi nga xamante ne bii ñooy amateur yi ay ca ma nga noona ma xale baa nga noona taaj si nga dof du wër xollaahi cause rek dañ lu ñëwaat tey est-ce que Lac de Guiers du ko faj tamit est que Lac de Guiers du faj am ma ci kanam tu lay Mansour Eumeu Sène gi noonu di ñëw ma ngay reetaan oh mel ni mbër dafa am confiance tey nag am na ku jiitu yor benn leket nañ am na ku yor benn leket mbër gi noonu di ñëw oh mu ngi sol benn benn grand mbubu bu blanc benn grand mbubu perkaan la am sam cey lamb gi noonu supporter yaa ngi koy supporter. tàccu maa ngi noonu ma nga noonay dox di dem. waaw waaw. cay am ma seen taay si de. dof di wër. moom la de ànd ak Doudou Sané. yor. bu Joof yaa ngi noonu. waaw waaw moo toj Joal Fadiouth. waaw waaw jóge dem Ndangan Samb toj ko. moom la de cay ay ca mañ xale jigéen boobu ñu seen. ca kaw fenêtre ba mooy jabaru Eumeu Sène xëy waaye jabaru mbër mbett na pression baa ngi ci kawam xool ko fa mu taxaw mu nga mol fa benn mol fi bleu blanc ndeysaan boo ko xoolee rek da nga koy ñeewantal nee naa la tey buntu kër Eumeu Sène foo sànni mbatt mu teg ndeysaan xoolal loolu rek supporter mbër dafa metti amateur yaa ngi noonu xool presse bi sama naataangoo yi nga xamante ne bii bëgguñu dara raw leen ci combat bi gàcce a sama gaay yi jërë ngeen jëf naaj bi tàng na wante yéen a ngi taxaw rek ngir jox askan yi ni nga xamante ne bii mooy xibaar yi wér te wóor jaajëf bundu kër Eumeu Sène fii ci Petit Mbao wax naa la tey askan wi yëpp génn nañ ngir gunge champion askan wi yëpp génn nañ ngir jàppale seen champion ànd ak moom ci arène nationale incha allah jëlal ma jëlal ma jumbi laal nañ lu mel ne benn juum safara sàng noona cay ànd ak mbërëm metti supporte mbërëm metti ma nga noona yàgg lay tàkk nag heure bu bëggee fay rek ñu dolluwaat ca ay mat ngir mu gën a yànj ngir mu gën a jolli ngir mu gën a jëf jëfi jëm ca kaw mi noonu Mansour ay ca ay ak ay banaana ca biir ba nga noona mel ni champion ngi waaj a génn nag Eumeu Sène ngi waaj a fële ci arène nationale wax naa la gis nga mbooloo maa ngi noonu taxaw ñoom ñëpp seen bët ci champion bi leen ko teg mu di Eumeu Sène mel ni ci simili yu néew rek dana daal di génn ci biir kër gi dëgmal fële ca arène nationale nga xamante ne bii fa la rendez-vous bu mag ba am tey diggante mag la de kon combat ba yàgg nañ koy waaj amateur yi yàgg nañ koy xaar wante nitu làmb yi yàgg nañ koo yàkkamti tey jii nag nee naa la lu waay doon jaay ci kanam tuuti dana lamb ndax ku ci nekk donga li nga waaj àndandoo ak say mbokk ngir jàkkaarloog sa sa morom ci kanam tuuti daañu xam ndam li fan lay féetee loolu. kanam tuuti lay doon ay ca Mansour gis naa benn xale bu jigéen mu yor benn leket mu yor benn leket mu nga mën foo bleu blanc tey lamb laa ilaaha illallah maa ngay gis ñu sarex ay papier marabu ay feuille jëlal ma mbote bi mbote xar bi xar bu ndaw bi dafa mel ni danoo takk geen gi mu mel ni benn caas bu somoo la takk ci geen gi ay waay lamb waay lamb bëri feem ay ca Mansour kooku ñun seen ca buntu kër Ama Sène mooy Tyson de moo sol laafu bu bula bi Tyson 2 ngi noonu yore benn leket Tyson 2 ngi noonu sol blouson bleu blanc yore benn leket leket ba nag biscuit ak suukar laay seen ca biir ay ca mañ champion nga noona champion ngay waaj a génn champion ngay waaj génn Mansour ma sëriñ bi ma nga sol benn deux morceaux teg benn sile bu bleu bleu de ca kaw ma ngay ñaan benn mbaxana aw sala sol ma ngay ñaan jàkkaarloo ak xibla ooy lambo waay sëriñ baa ngay wird ma ngay xëcc barrière di bàyyi muy dal lamb ngi noonu. Mansour Mansour champion baa nga noona mu mel nii ñeenti waxtu jot na ba tegal juróomi simili 16 heures passé de 5 minutes ci la Eumeu Sène génn fii ci buntu këram ay ca mi noonu 16 heures passé de 5 minutes ci la champion bii di Eumeu Sène génn buntu këram ma nga noona ma ngay tuuroo benn leket bu def def benn ndox ma nga noona takk benn xaaw bu weex ci digg bopp ba. am benn téere bu xonq ci digg ba am na seen a ngi noonu xool na soppa yi daal ree tur nañ ko benn siwo bu def ay saafara ciy lamb champion gi noonu mañ tey la bis bi mañ tey la 4 avril mañ tey la fête nationale bi nga xamante ne ci la ñuy féetee suñu indépendance nee naa la bis bi bëre ci bëre ci ndam la. ayca xale bi yëlbu na supporter ya yuuxu mu daal di jaaju amaa ngi noonu ay waay Eumeu Sène Doudou Sané nekk ca wet ga ay waay sama caméraman bi di Mansour mu nga yéeg ca kaw garab ga boo leen image bi mu leen di jox xam ngeen ne ñun rek ñoo ko am Mansour ana ci kaw garab ga yéeg dama koo yërëm ndaanaan la bëggut dara raw internet li lépp ma nga koy jël ma ngay jël lépp soxna si am ma seen nga ne leen jëlal ma soxna si am ma moo sol lu bulali ma ngay jooy soxna si mbër dafa metti yaram ya daw na pression ba monté na oh! xool ko ma nga noonu ñuy jiital di ko dugal ci biir kër gi ay waay ñu ñëwaat ci am ma ñu ñëwaat ci am ma Mansour di leen ba léegi ñu fii ci Fass ci Petit Mbao ci buntu kër am na seen ngeen àndandoo ak Leewtoo TV ay ca sama gars yi champion gi noonu Ama Sène gi noonu mi ngi noonu ooy champion champion xel ma dal ma nga takk benn téere bu xonk ca digg bopp ba ay ca ma ngay jàpp ma ngay jàpp jëm ca ca range bu noir ba la jëm Ama Sène nga noonu ca range bu noir ba waaw kay ay ca ay ca Modou waaw waaw say lamb ni lay demee dañuy jëli mbër nit buntu këram dañ koy jëli biir këram ànd ak moom jëm stade ànd ak moom dugg stade ànd ak moom ca lamb ja ànd ak moom ca géew ba mu bëre ba pare ñu àndaat ak moom biir këram Leewtoo TV donc la mën a amee ay ca Mansour xoolal supporter yaa ngi noonu xoolal xale ak seeni t-shirt xoolal mere yi mere yi maire yeeg seen i sëriñ njaago ay sëriñ njaago la ñuy la ñuy gunge kii di Eumeu ay waay tey fii ci Petit ay ah, ca Mansour ay kër Eumeu Sène jëm arène nationale ñu national xoolal gis nga gaay yi fu ñu romb léegi ña ngay jël tali ba ay waay man jëlal ma mbooloo naa la suñu sport national la jéggaani wuñu ko fenn ñoo ko moomal suñu bopp waaw waaw Rasulullah barke Rasulullah dox suñu diggante ak Eumeu Sène yaa ngi gis mañ amma ma nga ca oto bu maroo ba amma nga ca oto bu maroo ba ma nga ca gannaaw waaw waaw mu ngi noonu waaw waaw Mansour xoolal xale yu ndaw yi xoolal xale yu ndaw yi ni ñu toppee champion su ma leen sama yaram day daw kër Eumeu seen la ñu toppee Eumeu Sène ba fii topp convoi bi bàyyi wu ñu dara ndeysaan cëw làmb ngi noonu mañ jëlal mu ma Eumeu Sène bi Eumeu Sène baa ngi noonu kër Eumeu Sène lañ ko jëlee Mansour kër Eumeu la ñu ànd ak moom ma nga noonu la muy wax nag xaw ma ko waaye gis naa mu tàllal ñaari loxoom ñaari baaraamam gis naa mu tàllal ko lool di ngay wax xaw ma ci dara wante lu ngeen waajale seen mbër eh, eh, ay waay moom bu bëri na wax léegi Mansour suñu diggante ak Eumeu Sène dara doxatu ci Mansour suñu diggante ak Eumeu Sène dara doxatu ci waaw waaw mi ngi noona waaw li nga noona ci yoon ma jëm arène nationale champion nga noona ci oto bu oto bu oto bu kii bi oto bu maroon bi waaw waaw ñu noonu di jël tali bi mañ fa lañ toll nii génn nañu mbaaw jël nañu route nationale bi champion nga noonu ci oto bu oto bu maroon ba ay ca Mansour oto baa noonu oto boobu la Eumeu Sène nekk ayca suñu diggante ak Eumeu Sène Mansour léegi jël nañu jël national bi waaw waaw ña xotti ña xotti wuti arène nationale jóge nañ Petit Mbaaw ma nga ko xam xam ko ci ginnaaw ëmb seen ay ca Modou Mane ren si bu maro bi la ëmb seen nekk waaw kay waaw kay waaw kay Modou Mane cey champion cey lamb cey bëre ay ca gaa yaa nga ca gannaaw oto ba waaw waaw duggal rek Mansour maa kontaan ci yow jinne nga tamit malaaka nga kenn xamul li nga doon ci kaw garab yi ngay yéeg di yéeg ci kaw étage di di burunglu yi nga xamante ne bii mooy ayca Mansour am naa ngi noonu ñu noonu di jël péage bi ayca Mansour Fall sama caméraman ñu noonu di jël péage bi nag

oto bi waay barki yonent bi ki ko mën bokkut ak ki koy jéem ki ko mën bu ñëwee rek da koy def dem yoonam mu dong mën lii bi mobilisation am doole bi waaj mu doon waaj ay at di ko waaj ay weer di ko waaj ay fan ñu ñëw ñu ñëw ba ci bis bi. Ah, ah. Go, go. ñu ngi nii ñu ngi nii ñu ngi ñëw daanaka ak seen ande waaw ah, waaw préparé wu leen ñu ngi nii jël nañ péage bi ah waaw waaw ñu ngi nii di roog Guédiawaye Yeah. sa alal di def ci sëriñ bari bal muur ci gis am na ñu boobu doo doo doo ay muuma yaa ngi may dóor rek yow dañ ma rey Come on, son! Five million! Come on, come on! ngeen daw bu baax ñu jiitu leen. waaw bu ñëwee dina lay aw doo leen déglu doon yoon ci ginnaaw. mu ngi naan di ñëw. allo. ñëw ma ngay ñëw. te fi fan ay ca mañ ay maa nga noona maa nga noona di seen Pape Sarr mu sol coppite bu blanc ba léegi de léegi de mais nag fàtte xam nga ci sama caméraman. ma oto am ma seen bi. Mansour jegal oto bi. Mansour na jege oto bi doyul. Mansour dem na ba jàkkaarloo ko ma seen. dégg PA bi ay ca mañu maa nga noona ma ngay saraxee cay lamb ki tegtalam lamb dafa bëri ay tegtal wallahi léegi ñu àgg es ay ca Mansour ñi ngi noonu génn péage bi ñi ngi nee ñi ngi nii di tolloog Thiaroye sur Mer ña nga jëm arène nationale nee naa leen Leewtoo TV 100 pour cent lamb la lépp lu ngeen bëgg ci lamb ma jàkkaarloog sama caméraman bi ci Mansour Fall mu ndoog ci kaw oto bi ma toog ci kaw oto bi ay waay ngelaw li metti na wante internet yi jaral nañ ñu ko lépp loo leen bëgg dañ koy toppal ci wàllu làmb ña nga jëm arène nationale leen tey jii Mansour jëlal ma pont bi oh pont noona Mansour Mansour jëlal ma bon borom moto bi sama gannaaw xaw ko dum taxawee ci moto bi Mansour xoolal ma toogal waay xool ko waay ay waay taxaw na ca ay waay sama caméraman ñu ngi noonu di tolloog buntu Pikine léegi nag xam naa léegi ñu àgg arène nationale gis nga bi ñu noonu di tolloog buntu Pikine jëm arène nationale de guerre ñu bëri ñaari yoon tey doon troisième fois bi ban jàngat nga ci a defal mais c'est un combat au risque ñoom ñaar ñëpp day nekk ak kii bi à dugg ñoom ñaar nag adversaire la ñu kenn ki technicien la muy Eumeu Sène kenn ki tacticien la muy euh, Lac de Guiers 2 te sport noonu la souvent la technique peut éliminer la force comme encore la force peut éliminer la technique. père fàttali ñu sa tur. ah non kooku man man maay Pikine. yow yaay Pikine kay kay kay. père kay. Père Kaye mooy Balla Gaye numéro un Père Balla Gaye numéro un ngi noonu. Mansour lépp ci sécurité lamb ji xoolal ma booba oto xoolal oto bi oto police la mel ni ñoom tamit jël nañ seen ay matukaay dispositif yi ñu war jël yëpp ci lamb ji jël nañu ko jalal ma borom motaar yi jalal borom moto yaa nga noona xoolal sa waay la muy maye kii xanaa dafa dof ay ca cay lii Mansour arène nationale gi noonu na arrivé nañu agsi nañu nga noona Boucar Ndour Ndour Waly Mbergane ma supporter yi jëlal ma yi jëlal ma yi jëlal ma sécurité oh, lamb rek mën nii borom koppat bu weex booba ngay seen oto booba la am ma seen nekk léegi nag yegsi nañu arène nationale yegsi nañu arène nationale jóge nañu Petit yegsi arène nationale ànd ak champion bi am ma seen mbooloo mi ngeen ko toppee mbooloo mi Mansour Mansour léegi nag suñu diggante am Eumeu Sène benn oto duggati ci maa ngi noonu du ñu romb Mansour Eumeu ngi noonu du ñu romb da gis champion ya nekk ca wetam di ko gunge ay ca Mansour Eumeu ngi noonu du ñu seen lamb jaajëf champion ay ca champion ña nga naan 2-0 waa kër Eumeu Sène ña nga naan 2-0 mel seen xel dafa ngi nii buntu arène nationale nag sama gars yi ñu ngi nii di waaj a ci biir arène bi. ña nga noonu di xotti di waaj a ci biir stade bi. Mansour gis nga mbooloo mën nañuy tàccoo ëmb waa Pikine ñi la nee naa la combat bii Eumeu Sène daanaka buntu këram la koy bëree nee naa la combat bii Eumeu Sène daanaka buntu néegam la koy bëree Lac de Guiers jógee fële ci Guédiawaye ànd ak waa Waalo yëpp fekk si ko Pikine muy combat bu rëy di combat bu. nawoon na ma ma nawoon na ma Mbaye Babacar ma ne ko naam mu di ànd ak ki nga xamante ne bii mooy Lac de Guiers ñaari combat ñooy am ci làmb ji tey Eumeu ak Lac de Guiers danañ combat wante maag waa jooju tey danañ combat tey mu mel ni moom tamit dafa kag dafa kagulu ma nga noona muur na kanam ga ba ci dong ngay seen ay ca Mansour jëlal ma ko Pape Sarr nga noona toog ay ca Mansour ay ca Mansour ñu ngi nii ci buntu stade bi léegi nag. Eumeu Sène a ngi noonu ci buntu stade bi Eumeu Sène a ngi noonu ci buntu stade bi ba ngay waaj a dugg oto baa ngay ram ndànk oto baa ngay ram ndànk oto bu maroon boobu la Eumeu nekk gis ngeen ma nga noonu di dugg ci stade bi Mansour champion gi noonu gannaaw ba ñu ànd ak moom Petit Mbao bu bunte arène nationale. Aïcha Assane Waalo yaakaar naa lu waay doon jaay léegi mu lamb Aïcha Mansour Pape Sarr gi noonu ma jàkkaar lool Pape Sarr gi noonu ma jàkkaar lool summi na kagalu ba na woon na ma Babacar ma ne ko naam mu ne ma ñaari combat am ci lamb ji ma ne ko ban ban la mu ne ma Lac de ak Eumeu Sène dañuy bëre wante maag kii kës. Ah? mañ ayca mañ ayca Mansour Fall champion gi noonu di wër stade bi noonu wër na stade bi dañuy ànd moom mu wër stade bi sooga dugg ci biir arène bi ay waay Eumeu Sène ayca ayca noonu. grand Pape Sarr laa seen mu na benn tengaado la nekk ca tengaado ba nag jaaxal na ma wante gis naa ay poftan ca kaw waaw waaw lang ak moom ñu maa ngi noonu Mansour borom taay si ngaa ngi noonu Mansour ndaanaan baa ngi noonu Mansour grand Pape Sarr nga noonu ca kaw oto baa nga noona Mansour yaa ngi noonu jàkkaarloog am ma seen cooy mañ tay seen doomoo sol laafa bu bula bula bi moo war a bëre ak Franc waaw kay Franc bi jël ñaari drapeau yi barki demb man jëlal ma Bira Sène man jëlal président Bira Sène mu ngi noonu sol jeesineer bu blanc bi président gi noonu borom Kaolack ndangaan gi noonu président CNG gi noonu président ngay daw événement bi ma na seen gi noonu di waaj a wàcc sécurité bi ñu ngi organisé pour euh, ki nga xamante ne bii mooy Eumeu dugg maa yore benn butel Doudou Sané ngi noonu Doudou Sané Tyson ngi noonu Eumeu ngay wàcc Eumeu wàcc na ma ngay dugg Eumeu ngay dugg Eumeu ngay yéeg escalier ya benn par benn Eumeu nga noona ma ngay yéeg escalier ya benn par ngi noonu dañuy yëg espérer escalier yi benn par lamb say lamb lamb doy lamb doy waar Mansour Om noonu Mansour Om maa noonu taxaw. wàcc na ci oto bi wàcc na ci oto bi maa ngi noonu mi ngi daal ko impressionnant mais loo jàngatee lamb ji waaw du la bu ñu ñu suñu ñu ñu ñu tuuti rek loo jàngatee lamb ji tey waaw lamb ji waaw neex na de ah. waaw dañ dem na moom waaw ñaar yëpp mën naa joxe sa ñaar yëpp léegi ci combat wu ñu diggante jël kër mu doon tamit combat bi mooy combat lamb combat arrêté la. waaw man ñooñu ñoo ma wax si ñoom dara quoi. mais mais en tant que waaw dama ñëw gis état maa ngi entraînement. ñëw na ci bu kenn maa ngi waaw kon lay ziar. waaw doole bu baax. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ñu gis sa combat ak Forza taxaw na waaw di ñaan yàlla yàlla doon dab rek. yaa ngi ci waajtaay. waaw ñoo ngi si waajtaay waaw. foo toll. waaw ñoo ngi si kawam rek comme d'habitude rek. tey lan moo la andi arène nationale. waaw dañoo am signature de contrat. ok wala sant. de contrat looloo tax ma ñëw fi quoi waaw. yow ak Forza signature tey la. waaw tey la waaw waaw waaw. lan ci yaram yi bi nga bi nga bi nga gëjee ci làmb ji ba ñëwaat. waaw sant yàlla rek. ndax ñun làmb la ñoom amul leneen lu làmb kon làmb bu Sadio dañuy kontaan rek ànd ak mbégte. waaw waaw di sant yàlla bu baax rek. waaw la làmb mooy suñu métier. te il faut mbëri te naan yéen a mbëri da ngay ñëw jëlante sama dañ koy romb dañ may daw te bëre woon nañu yàlla may woon ndam si kawam ñu boolewaat damay ñaan yàlla yàlla may woon ndam si kawam rek. Mhm. jërëjëf waay. moom moo nekk ba léegi. waaw lamb la daal. Forza que mooy Forza la lamb la daal ayca champion. ayca mañ. ngi noonu doomu ndey Eumeu Sène. ngi noonu. Gambien ñu gën a gis. waaw bu ñu nuyoo ñu ngi di sant te bu woon pour ñu ñëw. parce que suñu doom ndey. combat difficile la am tey. parce que bëre ak moom. bëre ak moom deux bii daanaka da ko bii da daan. donc ñun amuñu lenn tey lu dul ñëw soutenir suñu grand mooy Eumeu Sène tey mënuñu wax lu bari ñu ngi bëgg a pour gis ko. ndax man dañ dañuy waxtaan après parce que mère recul pour mère sote lañ def te ku ñu gis rek di nga xam ne ñu ñu ngi si yoon yoon bi nga xam ne fi ñu tegoon suñu tànk. dañu bëgg a tegaat tànk fu raw foofu. kon Gambien si bi mu commencé woon lamb dina si lay ñëwaat. waaw comme li ma wax rek. Gambians want to come again. I working hard because my family. yes. jaajëf. di Ndiaye. oh. Salali Mouhamed Walali Mouhamed. Sakk Dia Makk Dia bul jaar ci kenn jaar ci man ñii di ndey taama yi ay sikkin sikkin ay sakam yaa. Oh. Gaynde Njaay gaynde ngi noonu gaynde ngi noonu bëri na ñuy bagage nag ku daje woon ak ñoom ci guddi yow yéen ñaar kese ay waay Mansour Fall xaw ma nooy def xoolal ma lii simba ngi noonu moom tamit suñu aada la bokk suñu cosaan la bokk suñu culture la bokk cay ay mañ mañ càkkaaba mi nga dembal de càkkaaba jógal càkkaaba jógal waa mais mañ mais mañ kii ferenkulaayu seex drapeau bi mooy kan eh oh mooy serpent oh ay waay mañ li am kenn amu ko ca ci lamb ci lamb waaw waaw drapeau vert jaune rouge la ñu takk ñoom ñëpp. dégguma. station de l'Union du Sénégal. di 4 avril di def vert jaune rouge. rek. ko ay ca Mansour Modou Anta ay waaj a wàcc noonu ñi lalal percal bu noir ak bu blanc black and white noir et blanc lañ ko lalal Baye baa nga noonu di waaj wàcc Cees kaay la takkee Cees kaay la waree dëgg mooy Ndakaaru ñëw fii ci arène nationale war a jàkkaarloog doomu Boy Kaïré bi Diène Kaïré la war a xale bi nga xamante ne bii macha allah doomu mbër la wante tamit ndaanaan la ayca Mansour ma nga noona xoolal ma googa Senghor Mansour Mansour Senghor ga mot na ñaar fukki mètre ak juróom-ñeent ay mañ ay lamb mañ oh Senghor gaa nga noona. am na li nga xamante ne bii mooy ay pas-pas ñu takk ci ay morceaux yu xonq ay ca Mansour jëlal ma jëlal ma pot jëlal ma ak leket ga Mansour jëlal leket ga ak pot bu ba soo ma soo ma morceau bu xonq lañ ko muure morceau bu xonq lañ ko muure xaw ma la nekk ca biir nag say làmb moo bëri ay bagage Modou Anta ngi noonu kan mooy bàkku ca biir Modou Anta ngi noonu borom Thiès ba ñu lala ba ñu lalee drapeau bleu ba ñu lalee drapeau noir et blanc noppi dañoo jël Senghor ga wërale ko jël li nga xamante ne bii mooy ay layu ay layu yu bees tax Mansour benn benn layu ñaari layu ñetti layu. ñeenti layu moo yor seetu bi juróomi layu juróom-benni layu layu yi layu yu bees la de layu yi foofagul de Mansour Mansour xam nga foofu xam nga foofu boo soqee ba noppi dangay ngay jël dugub ji nga def ko ci layu bi di ko yëngal séparer li nga xamante ne bii mooy dugub ji ak cox bi looloy foofu Mansour loolu ku jógewut kaw ga koo xam dama di village waa nag. kamoon taawun laa looloo tax kaw ga laa jóge yow booy taawun nga booy baabaab laa booy baabaab nga booy baabaab rek xamoo xamoo layu xamoo loolu nag xamoo foof mais xam nga cox xam naa cox nag waaw xam nga cox cox a ngi noonu ay ca Modou Anta ngi dugg si Modou Anta ngay ñëw mañ xoolal ma saaku ya xoolal ma drapeau ba ca kaw ban ko lalal ruus la bu xonq la waaw waaw wàcc na Modou Anta wàcc na ay waay ña nga koy sotti butel ba mañ ña nga koy sotti butel ba waaw maa ngay seen Boubacar Diallo le DJ des DJ jëf le DJ des DJ Boubacar Diallo ngi noonu bubs ay ca Modou Anta wàcc na de Modou Anta wàcc na de waaw kay Modou Anta ngi noonu di joggu ca layu dafa mel ni Mansour layu bu mu taxaw dafa am butéel buñ ko war a sotti waaw waaw Baye Fall baa ngi noonu borom kuur gaa ngi noonu papa Thiès nga jóge ana sa waa ji ana sa waa ne ñoom ba tey ñoom ayca Mansour jëlal ma sama papa yaa ànd ak Modou Anta. yaa ànd ak Modou Anta. ngeen jóge Thiès wàccal ma masque bi tuuti. mu daan day suñu jarbaat di suñu doom bu baax gën ñu gën boppam. ni ngeen ko waajale ñu di ko waajal yar ak teggin di ko waajal mu ñëw dal ànd ak yar ak teggin ñu mu àndal it yar ak teggin lañ leen xamante loolu yéen a dugal ci la. war a bëreeg doomu champion. baax na su ñu amee baax na waaye duñ ci defar benn yoon bu ko defar. dañu war a bëreeg doomu champion. ñooñu war a bëreeg doomu champion di ñaan yàlla may ndam ci moom ci kàttan yàlla baax na sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. jërëjëf papa jërëjëf père ay waay xoolal ma black and white la def Modou Anta noir blanc la def loolu drapeau moom Cheikh Ibrahima Fall la noir et blanc loolay wane ne Baye Fall ma nga rango ay sagoor ñaari sa weex ak bu xonq cey Mansour cey Modou Anta wante nag ndaanaa lay dajal doomu ndaanaan ngay dajal Diène Kaïré Diouf ngay dajal xale bi nga xamante ne bii daan na ay moromam yëpp waaye moo du am. ay ca Mansour moo du antange layu ba mu taxaw nag dafa am seetu moo du anta taxaw dafa am seetu moo du anta dongali xale bi dongali na léegi nag lalal nañ ko drapeau bu xonq bi ko drapeau bu mu war cee jaar mu war a jaar ci drapeau bu rouge bi waaw waaw. nañ waa kër Diène Diouf Kairé ngi noonu dañuy wax waa Thiès gaay singa ngi noonu di waaj sotti nañ ko benn butéel sotti nañ ko soow ma mu yëngal bopp ba ma ngay raxasu ca ndox ma am na seen borom dof du wër da nga koy tëggal yaa ñuy moom yàgg jib waaw waaw Mor nga ma koy bàkk waaw waaw Mansour ministre Matar Ba mi ngi noonu di ñëw ministre des sports ministre bi nga xamante ne bii moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram ci biir réew mi kooku mooy ministre Matar Ba. Senghor nga dóor dóoraat na waaw Mansour loolu mooy joos waaw waaw cey am ma tay singa borom daf di wër géew ba ab bal la yor ma ngay football jongle wala lan lay def ma nga noona yor bal ci digg géew ba ma ngay football la de guerre cey la de guerre le bonheur de Waalo ay waay lii neex na waay lamb waaw waaw ca Mansour Sa Thiès a ngi noonu du ñëw Sa a ngi noonu du ñëw takku Balla Gaye a ngi noonu ah xale bi Moussa Ndoye la war a dajal Moussa la war a bëreel Sa Thiès a ngooga ca Mansour Modou Anta summeeku na oh Baay Fall summeeku na nee na guddi guddi Cees na guddi guddi Cees kaay ma nga noonay lag Modou Anta ca Mansour premier baa nga noona ca Mansour ñaari xale nga ca géew ba arbitre suuf la na génn seen diggante ña ngay lewaatoo di foxantey baaram waaw waaw attention jàppante nan ba ngay rokoos ab aye doon na ko mu rëbb def na kat bi jeex na waaw waaw daanu nga daanu nga de Mansour xale bi daanu na ay ca Mansour ay waay xoolal Modou Anta turoo na sow ba yaram ya weex tàll ma ngay lancer ay gauche droite looloy wane ne loxo yaa ngay neex loxo yaa ngay dem xoolal ma Baye Fall bi Modou Anta ngi noonu di lagg Balla gay de dugg na oh Balla Gaye de dugg si na Balla Gaye de dugg dañoo war a def face à ca Mansour Balla Gaye dongo noona cey champion ndaanaan baa nga noona ndaanaan naan nga noona ay dugg si am ñëw na wante Sa Thiès ñëw na ñu ngi noonu jàkkaarloog Balla Gaye ma ngay ñëw Dakar combat bu faas ñoom ñaar xam nga ne Gaston Mbengue moo leen taxawal di combat ba nga xamante ne bii tamit bokk na ci combat yi gën a neex ci làmb gi ñoom ñaar ñu war a def face à face war a jàkkaarloo tey jii seen première face à face tey jii lañ ko war a def loolu ci kanam tuuti lay doon Mansour gis nga leen ñoom ñaar ña nga noonu taxaw ci géew ba ña ngay waxtaan nag la ñuy wax kenn xamu ko wante lépp ci làmb la. léegi gis nañ yeneen ñaari champion ca biir géew ba muy Moussa Ndoye ak gis nañ yeneen ñaari champion ca biir géew ba Moussa ñu jël gumbe ba Mansour loolu gumbe la loolu gumbe la leboo ko moom ndaw rabbi na ngi noonu waaw waaw ndaw rabbi na ngi noonu cey Mansour waaw waaw sa mañ mañ Sa Thiès nga noona Sa Thiès nga noonay dem moo war a jàkkaarloog Moussa Ndoye gën ak yarax gi le bu ba la war a jàkkaarlool moog Moussa Ndoye tamit ñu war a def face to face tey ci làmb ji Sa ak Moussa Ndoye Forza ak Pakala bu Mbuur aca ma ngay nuyu naataango ya taxaw na ñoom ñeente nga noona taxaw Moussa Ndoye Sa Thiès ak ki nga xamante ne bii mooy Forza ak Pakala Gueye nuyu Forza nuyu Moussa Ndoye nuyu Sa eh, am na lu am na na lu mu toppee jàkkaarloo nag Bombardier

ndeysaan dooley bàkku waaw waaw waaw waaw ay ca Moussa Ndoye Sa Thiès la war a bëreel naan bu Thiat Seck sama xarit sama doom ndey doom ndey nuyu naa la. waaw mais fay naa la. waaw yaa si jàmm. waaw maa ngi jàmm maa ngi jàmm baax. tey ñu fekk la fii ci arène nationale lan moo la fi andi. waaw si laaj lamb rek. déggal xol bi rek sama xol fees. mooy sa mbër. ñëppay samay mbër. ñëppay samay mbër. mbër yëpp samay mbër lañ. ñaar ñuy bëre tey la dëgg rek am na seen koo ci ñoom ñaar ñëpp. ñoom tamit namoon ngeen li nga xam li ngeen xamante ne bii mooy manifestation yi programme yi xam nañ ne mbas mi ba mu ci réew meeg léegi benn programme amul lu ngeen ko dundee. waaw ñu ñaan mu dem rek barke Sëñ Fall ñu ñaan mbas mi dem rek barke Sëñ Tuubaa mbas mi dem ci jàmm kenn ku ne dellu sa activité barke Sëñ Fall Mbacke. ayca mayal dara waa Leewtoo TV Baye Fall. waa Leewtoo TV naamu naa leen naamu naa leen waa TV ñu ngi nii arène nationale ca Mansour Issa Pouye ngi noonu Issa Pouye ngi noonu le caïman de Thiaroye eh. day gàtt ba neex mu gudd waaw waaw eey eey mbay ca Issa Pouye yaa ngi ca géew ba Balla Gaye xappoon na suuf sa Mansour Mansour Balla Gaye yaram ya tàng na de Mansour champion yaram ya tàng na de ooy mbay ay Mansour ay Mansour ana Lac de Guiers waaw waaw Lac de Guiers nga ca gannaaw doomu ndeyu Balla Gaye 2 Balla gay dem na ca Lac de Guiers Mansour Balla Gaye dem na ca doomu ndeyam Lac de Guiers ay waay ñoom ñaar ànd nañ def nañ def nañ course bu ndaw taxawaat ñu ngay waxtaan ñoom ñaar Balla Gaye ak Lac de Guiers de nañu waaw waaw yaa ngi noonu xëy waay leen rek fajar la ñëw ci stade bi waa kër waa kër Diène Diouf Kayre la ñu xale bi la mu andi Mansour xoolal ma Diène Diouf Kayre la mu andi waaw waaw nee naa la mbëru réew la bu jógee réew mu koy topp Diène Diouf Kayre waay doomu booy Kayre la. àndal lay goote Cees kaay la jógee gis nga jéena nga noonu ca biir moom tamit ñaari ndaanaan yooyu ñoo war daje waaye Mansour papa nee na la xeex wante ñeme woo xeex ak man man gaynde dëgg mooy xeex ak man ci kanam tuuti dana leer ay ca Mansour oh, Modou Anta ngi noonu ab bal lañ ko tegal léegi mu dégagé ko mu dégagé ko loolu ay tegtal la ca digg géew ba ñu def ay débat moom tamit cay làmb waay combat ñu bëri nee nañ mooy grand combat bi jëm Diouf Kayre doomu Boy Kayre borom Medina borom écrit sumb juun mooy jàkkaarloog Modou Anta Baye Fall bu jógee Thiès kaay ànd ak waa Thiès yëpp. Mansour Gris Bordeaux nga noona Prince la àndal Gris Bordeaux le tigre de Fass jaajëf waay ay ca Mansour ña ngay présenté ñaari mbër ya Diène Kaïré ak Modou Anta Diène Kaïré moo nekk noonu Modou Anta moo nekk ci moo nekk ci kanam jën kay rek moo nekk ca gannaaw ay ca noonu yore bal Lac de Guiers nga noonu yore bal ñeenti bal la yor mañ Lac de ñeenti bal la yor oo oh, am na lu ko sëriñ ba jox Mara bay kagalu Mara kagalu gis nga ko mañ daa muur bët yi mënoo koo xam ne jubal ma ko ay mañ xëccal ma kii mañ xëccal ma Mara mañ xëccal Mara bi. dépannage la arbitre suuf la na génn seen diggante ñoom ñaar ñi ngi bëree trophée président Alioune Sarr yéen a ngi bëree trophée ku am jom yéen a ngi bëree trophée ku am fulla a ngi bëree trophée ku am classe kooku mooy président Alioune Sarr nekkoon président CNG ñu dippee ko nga xamante bii mooy drapeau bi tey. ay yeex na Modou Anta moo ñu lool tey bii combat kii Cees kaay la ware ànd ak mbokkam kee ware Medina ànd ak mbokkam ñu ci arène nationale wàcc na Modou wàcc na booy xool ñoom ñaar ñoo tolloo taxawaay jenn la waatoo ma Mbaye Babacar ma ko naam mu ne ma Modou Anta mu xeex waaw waaw faaw mu raag jën kayre ngi noonu moo bëre ak Marley moo bëre ak Boy Bawol wante Modou Anta lay bëreel Modou Anta lay jàkkaarlool tey Modou Anta moo bëre ak Lac Rose wante moo bëre ak Zarko combat bu metti ba ñoom ñaar kenn du ñoom. lewaatoo rek la def wante dara amagul ay ca ñoom ñaar ña ngay nattante waaye dafa liggéey nag maa ko fekk club maa ko fekk Mansour foofu nu mu tuddati olympique club olympique club laa ko fekk ay waay Mansour del gaaw a wax olympique club laa ko fekk si sama tonton gii tonton gii moo ko doon entraîné di ko teg lu metti bilaay wallaay muy liggéey dafa nangoo liggéey xale moom jom la ñàq du réer borom wallaay dallaay waaw waaw xale nga noonu ak Diène Diouf Mansour Eumeu Sène a ngi noonu ma ngay wër géew ba fekk Lac de Guiers ci géew ba waaw waaw Eumeu Sène a ngay wër géew ba fekk Lac de Guiers ci digg géew ba waaw waaw sëpp ab bant di ko lu cax ma nga

Mansour loolu béjjën la béjjën bu ñu laxas moom sumu xonq la maa ko teg ca non la dëggeere ko teg ca kanamam la dëggeere ko teg ca kanamam xoolal ma la dëggeere ma nga sol benn bubb bu ñu xaatim la ñuy wax xar sànni Mansour gis nga wetu du am dara la mooy xar sànni da yëkkati rek sëppoo ko ma nga yor ñaari sengoor bi wër géew ba moom la dëgër de ooy lamb sey loolu waa kër am ma seen ubbi nañ keesu picc ma picc yi naaw nañu waaw waaw ambiance Mor Ngom a koy bàkk waaw su ma juumul benn béjjën bu xonq la per ma nga ca biir géew ba yor benn kaan sol yéeru yu ñuul kukk per Gaston bi kontaan nañu ci yow per Gaston bi bëgguñu ci yow tey jii kaw tribune la ñu nekk. kaw tribune la ñu nekk di filmer combat bi du ko reporter wallahi c'est pas normal mënoon naa yaatal affaire bi mu ñëpp bokk waaw gis nga Lac de Guiers la mu samp ci biir géew ba dafa mel ni lu mel ni benn benn siwo weñ ñu samp ca benn béjjën wante dafa mel ni am na lu ñu taal ca biir Mansour gis nga ma ma nga mel maa ngay seen sawara muy jolli ca biir waaw waaw waaw loolu lay wax nee na daan na yemb juróom-benn yoon yaawu nee na daan na juróom-benn yoon wante yamba daan tey nag na ñëpp jóg taxaw. de silence baa ngi noonu da présenté ñaari mbër ya ay ca Lac de Guiers nekk noonu yëkkati ñaari loxo ya Eumeu Sène yëkkati ñaari loxo ya waaw waaw mañ léegi nag jeex na de ay mañ xoolal loolu ay mañ xoolal li waay ay mañ jëlal loolu oh c'est magnifique waay lii rafet na waay waaye li rafet na yàlla na jàmm yàgg géew ba Eumeu Sène ak la de Guiers ñoom ñaar ñu fàttali leen seeni palmarès Eumeu Sène ak Lac de Guiers Eumeu Sène am na 10 victoire mi ngi njëkk a daan ngay lum le 7 daan Ousseyn Sow le avril daan Mbaye Diouf le 11 juin 2003 daan Souley Top le 2 janvier 2005 daan le 2 juillet 2006 le février 2009 daan le mars le 6 mars de Guiers 2 le 8 avril 2012 daanaat Balla le avril 2015 daan Bombardier couronne bi le le 2018 Eumeu Sène am na huit défaites Mbodj Diagne moo ko daan le 15 mars 98 ma sey daan ko le 7 février 1999 Mbaye daan ko le 30 septembre l'an 2000 Boy Kayre daan ko le 14 janvier 2001 Bordeaux daan ko le juin 2004 Khadim 24 février 2007 Modou Lo le 31 janvier 2014 Modou Lo ñëw daanaat ko le 28 juillet 2019 moom Eumeu Sène mu am ñaari match nul nul na ak Simel Faye le 23 février 2003 nul ak Lac de Guiers le 28 février 2010 ay ca nañ dem ci le bonne sœur du Waalo Lac de Guiers am na 12 victoire Mansour Diop numéro 2 la njëkk daan le 25 décembre 2004 daan Khadim Diallo le 20 mars 2005 daan Batika le 30 avril 2005 daan Babacar Diallo le 4 mars 2004 Aïcha daan Nees le 25 juin 2006 daan Yekini 10 décembre 2006 daan Tapha Tine le 28 février 2007 le avril 2007 daan le 28 juillet daan Tapha le 1 mars daan Papa Sow le avril 2015 waaw waaw daan le 28 juillet 2016 2019 daal di daan Baboy le 9 am deux matchs nul nul ak Eumeu Sène le 28 février 2010 am ñaari défaite daan ko Modou Lo daan waaw waaw ñaari matchs nul la am Modou Lo ak Eumeu Sène ay ca mañ gannaaw ba ñu defee. par mbalee si ñaari mbër yi arbitre ba soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar arbitre ba soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 Lac moo ñu woon gannaaw Eumeu Sène moo ñu kanam waaw waaw arbitre ba soufflé na ñoom ñaar ña ngay lewaatoo lewaatoo bu cey ñoom ñaar bëre nañ yoon bi mooy ñetteelu yoon bi bëre nañu 2010 match nul ooy mañ ooy mañ ooy mañ waaw waaw da ngay lewaatoo lewaatoo ba diib na jàppante nañuy jàppante lañuy baaram ña ngay déglu wante ku nekk ngi xalaat Mansour bàyyante nañu bàyyante nañu am na mën mën wante demul fenn ay waay la de doon ñaar ay ndaanaan fàttali tey jii mooy dibeer ñeenti fan ci weeru avril suñu fête nationale de l'indépendance mañ mu mel nii ayca mi ngi noonu mañ ayca Mansour ñoom ñaar arbitre sufle na ko wàllu tànkam Eumeu Sène sigg na jodd taxaw cey bi combat Aïda Diouf sa mbër maa ngi noonu Eumeu Sène a ngi noonu moom la jàkkaar lool la dëgër moo ñu woon gannaaw Ousmane Faye fële ca Argentine maa ngi lay nuyu Moussa Faye ji foofu ci Brésil suñu mbokk yooyu bi ñu topp ci Leewtoo TV kontaan ci yéen bu ñu jàppoon tey rek mën a jeex waaw waaw Eumeu Sène ak Lac de Guiers jàppante nañu baaram bàyyantewaat nañu waaw waaw arbitre nee na leen contact nga déggee combat daan na yàgg mañ am ma seen amul lu muy perte ci combat bi moo tax mu taxaw rek di xaar Lac de Guiers Eumeu Sène arbitre sifflé na jox na avertissement Eumeu Sène jox na avertissement Lac de Guiers arbitre ba sifflé war na génn seen diggante ñoom ñaar Lac de Guiers Eumeu Sène seen mi ngi gëmboo gëmb lu vert Lac de Guiers gëmboo lu weex Eumeu Sène moo ñu woon kanam Lac de Guiers ñu woon gannaaw waaw waaw. Eumeu Sène ak Lac de Guiers. dara amagul. jàpp amagul song amagul dóor amagul lenn lu mën a ànd jël amagul ci combat bi vingt et une heures passé de treize minutes juróom-ñeent wax bi jot na ba fukki simili ak ñett waaw waaw cey loolu dara amagul. lewaatoo ba yàgg na lewaatoo ba jib na ñoom ñaar waxuñu woon lii ci signature bi rek Mansour waxuñu woon lii ci signature ba. neexal waxtaan la rek signature neexal la rek. ana Balla Gaye numéro 2. le lion de Guédiawaye. le lion de Guédiawaye waaw waaw. lu mu la wax signature loolu lay def jour combat. la dëgg ngay suul tànk waaw waaw fi toll nii ku ci dóor sa morom war naa mën a dal Lac de Guiers a ngi jiital tànku càmmoñ Eumeu Sène a ngi jiital tànku ndeyjoor waaw waaw waaw waaw Ndakaaru Ndakaaru Mansour combat bi daa mel ni daa nar a yàgg man combat bi daa mel ni daa nar a yàgg sama téléphone ba fi bindoo maa du fay waaw waaw ñoom ñaar kan moo ci war a bëre. da ngeen war a bëre. waaw waaw. gis nga maa ngay mbëb. cokkaas am na léegi wante dalul Lac de Guiers Eumeu Sène eh xoolal Lac de di ko tàllal loxo ba xanaa danaan ko ndax gis nga maam gisoo ma amañ kenn du Balla Gaye kenn du magi Sa Thiès Eumeu Sène wàcc na wàcc na siggiwaat waaye combat bu yàgg baaxul day soof amateur yi déggu ma mañ. combat bu yàgg day joxe tension de. combat bu yàgg day indi tension ku ci amee kàr jàpp bu dul a jig la dëgër am na seen la dëgër wàcc na siggi taxawaat waaw Lac de Guiers Eumeu Sène ay waay Mansour Mansour dégg nga garab yi sama gannaaw nee na ma am ndax amu leen baraada ak kaas yu teg la wal heure bi foo ko daa nar a yàgg loolu la gis. non na jeex léegi daa ko waaye ca nga ne nga amu amu leen lan. nañ wut baraada ak kaas. lu tax nga wax loolu. dama xam ni fi la fanaan parce que ñoom ñaar ñëpp décidé wuñ pour diggee fii. xam naa seen bopp. du gaawal combat bi. non parce que boo xoolee ñaari pieds yi ñu teg nii da ngay xam. yoru na ama yoru na génnaat. mais taxul mu am li mu bëgg parce que ñaari tànk yi ñu teg nii du sotti gauche droite la ñu teg bu fekkoon dañu teg ñaari gauche da ngay xam ne dañu bëgg libérer sénégalais yi. boo déggee daa jiital gauche am seen jiital droite. waaw moo tax dañu fiy tënk loolu mooy nañ fi toog fajar pare wuñu dañ ñuy nax rek. waaye loolu arrangé wul amateur yi ñun ñii di reporter làmb ji arrangé wuñu dañ ñuy nii dañ ñuy nax ku am looy defi mën nga ko dem defi ñëwaat lii nga fi fekkaat. ku am barada tas mën naa teg lawal. tegal sa lawal xel yi naan te jënd sa deuxième teg naan te woo sa waa kër ñu seetaan bu fay télé yi jàpp journal mu jeex ñu fekkaat fi lii jógeeguñ fi. cardiaque mooy def. yow moom nag ci suukar mais bi yow fu mu ne nii cardiaque yëpp rees na gis nga premier sifflet bi arbitre ngay xam ne duñ fi gaaw a jógee dama la mbir soo bëggee lamb bëgg seetaan lamb Balla Gaye 2 c'est le meilleur. champion baa nga noonu. c'est le seul. lu muy wax jour signature loolu lay def jour combat. am lay yemale te ama koy gën a tax a jóg te lay am fii la ñu fanaan. wallaahi bëre nañu 10 minutes. jàppante amagul song amagul door amagul arbi sifle waat na ñoom ñaar ñu daw demee wet xoolal la degeer di ko woo ci digg géew bi waaw mbaa yi combat baa ngi bëgg a soof waay la degeer am dem na la degeer am seen waaw mais lan moo tax la degeer ay combat bi yàgg waay waay moo jaaxal ñëpp waaw waaw cey loolu sa waay nee na ma kenn du Balla Gaye numéro 2 moo ñeen gisaguma dara de la dëgër am seen dara amagul la dëgër am seen am seen ngay seere la pataake ga na recul deux waaw ah, waaw eh eh eh Lac de Guiers ngay nëb de wante demut public baa ngay commencé yuuxoo man lu ma xam de Eumeu Sène Lac de Guiers Eumeu Sène Lac de Guiers ñaar ñoo nga ca wetu saako ya attention Lac de Guiers wàcc na Eumeu Sène nga ne tekk ko déglu Lac de cokkaas na mais dalul Lac de Guiers ngi cokkaas cey bi combat Lac de Guiers ngay yëkkati ñaari loxo yi ca kaw Lac de Guiers Eumeu Sène arbitre arbitre soufflé na war baa ngay laaj ay sixième ndax pare nañu laaj na ñaari mbër ya soufflé waat na ay ca Mansour arbitre arbitre ba soufflé waat na la dëgër dagg na le waa di woo am na ca biir géew way ay waay Lac de Guiers Eumeu Sène doorante amagut jàppante amagut national mu ngi soog a accueillir bu toll nii depuis ba ñu ko émigré ak léegi. waaw waaw boo ñaan la de guerre nañu fi wante am seen la de guerre bii benn moom amateur yi dañoo amul lamb mois de mars 2020 ba 2021 lamb amul. moo tax bi ñu waaw ay ca nañ ku ci nekk jëlaat na avertissement muy ñaari avertissement arbitre sifflé waat na ama wàcc la dëgër wàcc la dëgër cokaas ama ne tekk di ko xool waaw waaw waaw ñoom ñaar lan moo tax ñu bëgg wetu saako yi am nañ consigne la consigne la Serigne Mbaye lañ ko tegtal wala nu mu demee noonu ah du ma yee déedéet bëgg nañ wetu saako yi daal ñoom ñaar bëgg nañu wetu saako yi aca ama door na mais dalul Amba door na mais dalul jàppante nañuy baaram ca kaw jàppante nañuy baaram ca kaw lan mooy am Amba day dem wala Lac de day dem amma Sène la de seen la na seen la dëgër combat baa ngi yàgg vingt et une heures de trente minutes léegi ay waay nañ heure baa ngay dem waxtu waa ngay dox di dem yoonam combat baa ngi bëgg guddee nag libéré leen amateur yi ca ba léegi ñu ngi ci stade bi am na seen la de Guiers numéro am na seen Lac de Guiers numéro Eumeu ak Lac de Guiers numéro 2 grand bi nee na boo yeexee salaatu xayru mi ne naw fi la leen di fekk de salaatu xayru mi ne naw mi mën ngeen a wàcc dem jënd reer ñëwaat mën ngaa dem jënd ataaya ak suukar ñëw teg ma ne ko lu tax mu ne ma combat bi jeexagul baax na damal waaw waaw Lac de Guiers Eumeu Sène Lac de Guiers spectateur yaa ngay seetaan waykat yaa ngay way ngi reporter caméraman yaa ngay filmer waaw waaw cey lamb Lac de a ngi wàcc di siggiwaat Eumeu Sène a ngi ne tekk di ko déglu seen Lac de Guiers Eumeu Sène Lac de Guiers amateur yaa ngay ñaxtu ñu ña ngay xàddu di wàcc di ñitti ñii ña nga toog di yëkkati seeni loxo di sànni looloy wane ni kontaan na Balla Gaye numéro 2 na Modou xarañ loo ndaa naan yaa nga noona vingt et une heures de trente cinq minutes ñëwaat na woo leen ca biir géew ba Eumeu Sène am na trois avertissement Lac de Guiers am na trois avertissement arbitre soufflé waat na léegi ñu commencé dugg seen xaalis du ko dagg na ay ca mañ ku ci nekk am na ñetti avertissement léegi ñu commencé dagg seen xaalis waaw waaw Eumeu Sène dégguma day niil ay amateur booba nee na ji day niil ah ndaw ma lépp déet ndax combat ba ngay bëgg yàgg Lac de Guiers Eumeu Mansour damaa yaakaar ni nit soo moom mu daan nga ñaan ko revanche ma may la revanche boo ñëwee da ngaa war a jàkkaarloog moom jëflanteeg moom. te bëri nañu ñaari yoon ñu ma ñetteel yoon. waaw waaw. Lac de Guiers ak Eumeu Sène. caméraman yi dañuy sonn gis nga mañ amateur yaa ngi jóg mañ xool. bañ amateur yaa ngay jóg dañoo découragé gis nga amateur yaa ngi jóg waaw waaw kenn mës a gis lii la dëgër cokaas na cokaas na gauche lewaatoo rek lañ fiy def jàppante wuñu door amul songo amul dara amul te bëre nañu lu tolloog fukki simili ak juróom ay waay Moussa Ndoye nga noonay dem Moussa Ndoye ngay ñibbi xam naa daane combat bi saful xorom saful suukar. comme yàgg saful dara waay. attention Lac de na door na booba daa na de Lac de Guiers door na de ay ak soo continuer la war a doon Lac de Lac de Guiers ak Eumeu Sène ñoo nga ca wetu saako ya Eumeu daa mel ni nàcc na de Eumeu jël na coup Eumeu day faju ji Eumeu jël na coup waaw waaw mañ Eumeu jël na coup Eumeu miis na lii na aar Eumeu Sène arbitre baa ngay xoolaat am Sène xool xool na dëgg ñetti arbitre yaa ngay waxtaan ak ñoom mañ trio arbitral bi kii jàkkaarloog ñun di ñëw Jurbel la dëkk kooku mooy Matar Diouf Diouf a ñoo ko bàyyi Matar a ngi noonu ñoo bokk dëkk tey bu ñu dàqawoon Dakar maag moom ñooy ànd bu ñu dàqawoon Dakar tey maag moom ñooy jiitle ñoo bokk dëkk Matar Diouf Diouf ñoo ko bàyyi maa ngi lay nuyu waaw waaw taxawaat na ñoom ñaar ñu defaat la même chose daw jëmaat ca saako ya la dëgër taxaw am na seen taxaw la dëgër a ngi cokkaas mu ngi mel ne lu bëgg a dox ci kaw am na seen. waaw léegi temps bi jeex de combat bi day niin Lac de Guiers Eumeu mën na Lac de Guiers arrière ñëwaat Lac de Guiers Eumeu Sène ay waay bii combat saful xorom saful suukar ay waay bu jeexee ci nii du neex amateur yi de combat bi bu terminé nii bu neex amateur yi. bu jeexee leneen wax Thialis bu jeexee wax suñu patron bu jeexee nii lu ñuy wax amateur yi waaye lu ñuy wax Thialis lan la ñuy yóbbu Mansour ay waay waay. Lac de ak Eumeu Sène Lac de Guiers moo ñu won gannaaw Eumeu la ñuy jàkkaar lool Lac de Guiers nga jiital tànku càmmoñ Eumeu Sène jiital tànku ndeyjoor waaw Lac de Guiers Eumeu Sène diggante Dóor Eumeu Sène ay waay bii combat yee gën a waay Ousmane Diallo yónnee ma mat laa yónnee ma mat laa ma teg ko nii mën naa fee soonu de mbaa ma defee lu mbaa ma jaaxaan su ma neexee di reporter combat bi ndax bii combat jeexagul Assane Waalo yónnee ma ataaya ak suukar ma teg sama wet waaw waaw trois heures ma xëj na fi de ba arbitre soufflé ba léegi suñ tegoon lawal ba nii ñor na xelil ma kaas xelil ma kaas bu la dara metti dinaa la xelil kaas ay waay amateur yi kontaan nañu ci ñaari mbër yi amateur yi kontaan nañu ci Lac de Guiers waaye kontaan nañu ci Eumeu Sène waaw waaw attention oh amañ lu xew ayca Lac de Guiers Eumeu cokaas na tey cokaas rek la benn loxo lay xeexee muy góos bi ay waay ana Balla Gaye te kan mooy door góos droite door góor ki gauche droite mañ ci làmb ji kan mooy mépp door la gauche droite nga arrière mu dugg sa garde wàcc ci say tànk jaxase lu mu am kenn du kenn du Balla Gaye numéro kenn du Modou xarañ loo waaw waaw attention la dëgër door na gauche cokkaas droite mais dalul wallaay combat bi dina jeex ci nii waay arbitre sifflé na nee na combat bi jeex na nee na combat bi jeex na day am prolongation wala lan lay am ñetti arbitre yaa ngay concerté wu jalal ma ñetti arbitre ña ngay concerté wu ña ngay waxtaan dañuy dem prolongation cinq minutes cinq minutes amateur yaa ngay wàcc di ñibbi Assane Walu ne woon naa la yónnee ma ataay ak suukar ak baraad ak kaas akub gaz ay waay ma teg sama lawal bi ay ca Mansour Père Gasson ngay wàcc mook président Bira Sène ñu ngay dem ca ñaari mbër ya ay waay waxtaan leen ak mbër yu waay Gaston Mbengue ak président Bira Sène ña ngay waxtaan ak ñaari mbër yi ña nga naan leen ñaari naw la ngeen ña nga ñaari gor ngeen ña nga naan leen da nga leen joxe seen kaddu te nit nag gor bu joxe kaddoom moomatul boppam wallaay gis ngeen ñoom ñaari ñoo nga taxaw président Bira Sène ngay wax ak ñoom Gaston ngay wax ak ñoom. ay ca Mansour arbitre suuf na gannaaw ba ñu bëree ba temps ba jeex ñu nopp lu tuuti lii nag mooy prolongation lii mooy buuña prolongation la ñuy bëree nii war naa mën a jeex fii Lac de Guiers ak Eumeu Sène arbitre ba suuf na génn seen diggante ñoom ñaar Eumeu Sène ak Lac de Guiers Lac de ñu woon gannaaw Eumeu Sène la ñu jàkkaar lool lewaatoo ba gaawul yeexul saful xorom saful suukar kenn xamul la muy nuru bi combat amateur yi kontaan nañu caméraman yi kontaan nañu reporter yi mere nañu leen ndax wax daa metti waaw waaw Lac de Guiers ak Eumeu Sène numéro 2 wala Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène ay waay xamul lii lu muy nuru nee naa leen bu doon Balla Gaye numéro ba nii jeex na bu doon Modou xarañ loo ba nii jeex na bu doon doomu Fallaye Balde ba ba nii jeex na ay waay say Lac de Guiers mën a yàgg combat mën naa bëre 48 heures ba Thierno Ndiaye laa dégg mu ko doon wax. naan ma Lac de Guiers mën naa bëre 48 doo du sonn Pa Thier a ko doon wax Pa Thier borom ziar na ko dafa xam làmb Lac de Guiers am na seen dimanche le 4 avril 2021 fii ci arène nationale Leewtoo TV ngeen ngeen àndal TV ngeen di topp. cent pour cent lit lañ leen di toppal cent pour cent lamb ngeen di am duñ ci boole dara lamb kese lamb dongu lamb képp kenn du Pape Thialis Faye suñu PDG Faye borom Penda Waagaan yàlla na sa jàmm yàgg wante kenn du Assane Waalo borom Linguère waaw wante sama caméraman bi maa ko tuddee l'infatigable du sonn ndaanaan la ca 10 heures ba léegi nag moom ci terrain bi ca 10 heures ba ci suba ba 10 ci guddi maag sama caméraman ci terrain bi kenn du yow liggéey nga nga wallaay wallaay waaw waaw de temps ak moom ci terrain bi 10 de matin ba 10 ci guddi waaw waaw Lac de Guiers Eumeu Sène dara amagul Moussa Faye lamb ji xam naa fa nekk sa xol Aliou Sène borom saa jaamaane production fa nga nekk sa xol acca man dem na man dem na mais agul attention weccoo nañuy coup weccoo nañuy coup am ma door na la dëgër door waaw waaw bu loolu yàggee mu jeex de waaw waaw la dëgër am seen arbitre bi soufflé na première cinq minutes yi jeex na wala ama ama day faju jiwaat ama daa dellu ca docteur ba ama day faju waat Mansour arbitre ba owaat na leen ca diggi géew ba bi combat neexut de combat bi neexut arbitre suuf la waat na arbitre suuf la waat na la dëgër Eumeu la dëgër ak Eumeu Sène lewaatoo baa nga noona ca kaw lewaatoo kaw la ñuy lewaatoo Eumeu Sène mi ngi takk xaaw gu weex ci loxo ndeyjoor bi jiital tànku ndeyjoor la dëgër jiital tànku càmmoñ Eumeu Sène ak la dëgër jàppante nañ loxo yëkkati ko ca kaw da ngay ca wetu saako ya attention fàttali ñoom ñaar ku ci nekk am na trois avertissement ñoom ñaar ku ci nekk am na ñetti avertissement diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène di leen fàttali ngeen nga ànd ak Leewtoo TV tey jii di dimanche le 4 avril 2021 fii ci arène nationale ak Gaston production waaw yi kenn kontaanu ci. sécurité bi sax dañoo sonn ñiy sécuriser làmb ji sax dañoo sonn seetaankat yi dañoo sonn caméraman yi dañoo sonn reporter yi waxe noppi waaw waaw Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 ña nga ca wetu saako ya combat bi doy na waar de Mansour combat bi yéeme na de mañ la dageere ngay manœuvre mais maa nga ne tekk di ko déglu attention la dageere ma seen laa ilaaha kenn mës na gis cey lii Lac de mi lu ko dal Eumeu Sène ak Lac de Guiers Lac yooru na door gauche droite attention oh arbitre suuf la ne arbitre nee leen arbitre nee na bëre leen dara amul arbitre nee na dara amul Eumeu Sène nag mbër mu am résistance la Lac de Guiers mbër mu mën a yàggal combat la Lac de Guiers am na seen Lac de Guiers lay dóor mais ci loxoy am na seen lay daal àggul fenn Lac de am na seen attention am na wàcc na am na wàcc na garde ga waaw waaw ay mañ mbaa combat bi jeexul ay mañ lu may xeeñ neexuma ay mañ suur mañ suur lu may xeeñ neexuma de match nul moo may xeeñ match nul maa la ko wax match nul la may xeeñ ci biir combat prolongation bi léegi mu jeex am na seen ak la dëgër la dëgër ngay cokkas mais dalul dañu naan dóor pour wut bunt la wante dóor day dal dóor yi benn dalu ci combat bi daal attention Lac de Guiers Eumeu Sène na nee na Lac de Guiers nee na am ma damaatal ca koy faj am ma mbaadu li muy génn ci deret daa bari ñëwaat na lewaatoo bi gaaw na bi yoon waaye li des ci temps bi bariwul Lac de Guiers Eumeu Sène ñu ngay lewaatoo ca kaw Eumeu Sène Eumeu Sène dafa mel ni kuy waaj a dem Mansour Eumeu dafa mel ni kuy waaj a dem Eumeu Sène Lac de Guiers Lac de Guiers ñu won gannaaw Eumeu Sène la ñu jàkkaar lool tey jii di dimanche le 4 avril 2021 fi ci arène nationale combat bi saful xorom saful suukar yàgg na trop parce que yëpp vide nit ñi sax dañoo vide maa la ko wax ñoom ñaari jàppante nañu ca kaw ña ngay foqantey baar attention arbitre nee na leen contact leen jàppante leen waaye dañoo bañ ña ngay wër wër loo rek arbitre sufle na nee na leen ñëw leen ci géew ma Sène a ngay reetaan jox nañ Eumeu Sène avertissement bu ko bu combat bi jeexee nag affaire Eumeu Sène day ñàkk attention arbitre suuf la waat na Mansour arbitre suuf la waat na diggante Eumeu Sène Lac de Guiers Eumeu léegi am na 4 avertissement Lac de Guiers am trois avertissement combat bi léegi mu jeex est-ce que bu jeexee Eumeu de guerre Eumeu Sène c'est 5 à 3 ñëwul ñëwul Lac de Guiers Eumeu Sène Lac de Guiers Eumeu Sène ñëwul c'est acabou.